caamee bi nga xamante ni ubbee nañ ko campagne bi su loolu weesoo dañuy nuyu le coordonnateur départemental de Pastef Kaolack coordonnateur également du comité électoral loolu su weesoo dañuy nuyu le directeur de campagne de la tête de liste départementale mooy euh, Mamadou Lamine Ndiaye di nuyu également ONG Joseph Coly bi nga xamante ne mooy communication wu euh, élection législative di nuyu particulièrement eh, li may wax ni daf ma trop mooy di nuyu tous les responsables de cellule de la section communale de Pastef Kaolack parce que tey liggéey bi su yaatoo ba yegg si base parce que ñoom ñoo ko yóbbu si base di nuyu la JPS la jeunesse patriotique du Sénégal section Kaolack département si liggéey bu ama am solo bi nga xamante ni moom lañuy def di nuyu les militants et les parce que don le soi suñ koy seet dëgg ci militants ak sympathisants yi lañ koy fekk parce que amuñ benn poste de responsabilité revendiqué wuñ benn poste de responsabilité ñoom ñooy jiitu tout le temps si liggéey bi ñoom ñooy défendre le projet bec et ongle sans rien attendre au retour kon ces militants et ces sympathisants le projet mu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax euh, loolu su weesoo nag euh, dañuy wax tuuti rek si solo campagne bi wala si solo élection législative yi Pastef les patriotes dafa am jaar-jaar bu bu neex mais am jaar-jaar également bu métti jaar-jaar bu neex mooy en dix ans on a su révolutionner la politique au Sénégal en dix ans on a une dynamique boo xamante ne moom moo soufflé du changement en dix ans on a su wala réconcilier la jeunesse, les femmes, en tout cas une grande frange de la population si politique. Nous savons que politique, nous savons que politique, c'est l'art de gouverner la cité, mais politique, c'est l'art de développer la cité. L'homme parce que les patriotes en 10 ans. Djadia Moumetti, parce que tout simplement, de nous pour révolutionner. De nous pour révolutionner la scène politique, de nous aussi pour déjétiver le système, moi, il pratiquement malsaines. des pratiques yoo xam ne ñoo ngi ñoo ngi privé les élèves et li nga xam ne mooy seen du cadre bu baax pour ñu mën a jàng réussir système boo xamante ni moo privé le secteur privé national ñu mën a accéder à certains marchés ñu mën a développer bu mën a concurrencer d'autres système bi nga xamante ne moom privé suñu yaay yi suñu yi ngir ñu mën am cadre boo xamante ne dañ mën a yar seen i doom yar bu mucc ay loolu nag Euh, soo ñëwee pour xeex ko yow da ngay bëri ay adversaire et ñun adversaire bu njëkkoon a am mooy l' état malheureusement état bi nga xamante dafa war a nekk pour tout monde pour un service public état boobu dafa dal ci kaw parti Pastef ñu muñ ko gérer ko ak gëm-gëm ak dignité ba yàlla suñu borom may ñu ñu yegg si au pouvoir le 24 mars passé ubbi benn page bu bees pour Sénégal page bu bees boobu noonu. tënku si benn projet projet bi récemment ñu enrayé ko si benn projet de politique publique tuddee ko Sénégal vision 2050 loolu nag sacrifice yu ñu def yëpp fu ñu jaar yëpp ak ni sénégalais génnee en masse def benn vote utile ba rek ba may ñu 54 virgule et quelques pour cent pour ñu mën a jàll au premier tour mu nekk résultat yu historique lu musul am si réew kon yaakaar fort Mais Yatar pour nous fort, fort, fort. Il va falloir qu'on donne des outils supplémentaires, qu'on projet sur une rampe de pour à ce projet boobu tant attendu par les Sénégalais ñu mën ko mettre en œuvre. loolu nag moom moo mu nekk une obligation un devoir loo xam ne mënul ñàkk moo ñu jox majorité son excellence président Bassirou Diomaye li à à l' assemblée projet boobu mun ko mettre sur les rails ba sénégalais mun si gis seen bopp moo tax ma jàpp ne élection yi depuis démb si minuit wala depuis tey si minuit démarré na officiellement mais ñun Pastef Kaolack ñun la coalition Pastef Kaolack ñoo ngi koy officialiser di wax militants yeeg sympathisants yi képp ku yeewoo Kaolack dans le département de Kaolack que élection yi nañ jàpp ne mooy élection yu ëpp solo sax élection présidentielle parce que sans une majorité confortante sans une majorité éclatante sans une majorité écrasante le projet dina titubé dina mel lu tënk te duñ mës a du mës a yegg nga xamante ni foo la war a jëm kon nañ defaraat toogaay yi gën a farluwaat jël élection yi bañ ko jël la légère waxuma ñu gagné mais il faut gagner haut la main raw gàddu benn voix soo ko amee da ngay jàll mais mën nga am benn voix jàll te pourcentage bu am solo doo ko am et que ñun nous voulons un pourcentage intéressant un pourcentage qui dépasse les 80 pour cent ce qui nous permettra si liste proportionnelle bi mën a engager le maximum de députés élection yi alerte la élection yi c'est une manière de tourner la page définitivement ak les membres du système Donc au-delà de donner une majorité à l'Assemblée, c'est une de créer une nouvelle page politique, d'enterrer certaines personnes politiques, wala certaines personnalités politiques, wala certains partis politiques. loolu nag daf ñuy laaj ñu ñëpp ñu ànd doon benn jàppale suñu tête de liste jàppale la liste départementale de Pastef Kaolack pour que au soir du 17 novembre lañ ko defee woon ci élection présidentielle ñu mën a crier woo et que mu nekk benn page boo xam nouvelle page boo dina tax Kaolack dugg si histoire dina tax Kaolack également mën a bénéficier si li nga xamante ni mooy les politiques de les politiques publiques mën a bénéficier ay infrastructures mën a désenclaver désenclaver certaines communes ñu mën a bénéficier de certaines routes ñu mën a bénéficier de l'électrification rurale et cetera et cetera te loolu les députés qui sont là en tout cas ils sont préparés pour mën a défendre Kaolack mun a andi nest ay progrès si village yi mun a andi lépp si Kaolack pour que Kaolack waaye mun a gisaat seen bopp si li nga xamante mooy réew mi foofu laa yegg terminé kàddu yi dinaa moo santaate ñëpp merci beaucoup